finalement ñu bëgg koo song jëlee ko fi génn mais am na motif loolu mooy loolu mooy particularité mais am na motif li tax mu xëy rek jonjoog ñoom ndax bi fi waajuram bu góor di nekk Maamoroon sali moom sëriñu seexu taalim la woon da daan jàngal ci daara ji di jàngale waaw di jàng di jàngale fu waajuram dem mu nekk ak moom ba ni waajuram di fi jógee mu nekk ak waajuram bu jigéen ba ni waajuram jógee mais bi Maamoroon Tasali wàccee liggéey en 1882. ba ca déwén sa tombeeg 1883 di am assasine tollu 1301 ci atuk gàddaay gi toll mu ngi tombeeg euh, ñaar fukki fan ak juróom-ñaar euh, ci weeru koor di leeltu xadri ba ci suba ga bisu àjjuma ci la woo dong yépp ba ñuy ñëw ak ña fa nekkoon ci daara jëpp ne leen saafaxani rasulillahi seet si na ma moom rasulillahi mu musafaha mooy tuñante nañ bi xawli rabbi asxaabaka bi xidmat wala turabbihum bi darsi waaw mu ne ma sa dongo yi bul yemati rek ci di leen yar ci ci njàngale rek na nga leen yar ci ak xikma def ci ñoom li nga am mooy tarbiya tarbiya ruuhiya bi moo xam ne wax la loolu waa daara yi ñi ëpp ci dongo yi jàngaleen fa indi woon ñëpp dañoo dem wax nañ ñi fa desoon sax ñu néew a néew lañ waaw mooy ñi fa desoon wax nañ ñu néew a néew lañ ñi ci ëpp dañoo dem ci diggante boobu nag mu wootee loolu ay mbiram commencé di yokk ndax ku may ñu commencé gis loo xam ni xamuñu ko woon ci Afrique soowu jant muy tarbiya ndax tarbiya bu ñu waxee tarbiya mooy Sëñ Tuubaa moo ko njëkk def ci soowu dan jant fii nii ci Afrique de l'Ouest tarbiya googu nag commencé jaaxal nit ñi sëriñ bi mbiram di yëkkatu ko te boobu mu ngi doon ndaw ci zaayir ndax waajuram dafay génn à 1882 à 1883 la woote yoonu murit bi mu wootee yoonu murit googu nag ci la commencé chef de province yi fi nekkoon ak chef de canton yi commencé di gis loo xam ne xamuñu ko woon boo xoolee chef de province yi fi nekkoon ay nit ñu ñuul la ñu woon mais doon liggéey ci colon yi chef de canton yi la même chose ay nit ñu la ñu woon mais dañu liggéey ci colon yi bi si Ahmadou Bamba nit ñi di ko commencé di wëj ji daara ji di fees ci lañ commencé nag xam ne lii nii jëmul kër ci lañ commencé bind ay rapport

di saaga nit ñi di daanu nangootuñoo fay impôt ñu loolu xamuñu ko waaw bi nga xam ni sëñ bi ay mbiram gën naa yëkkatu ko bi mu jógee fii sanc Daaru Salaam en 1886 bi mu sancee Daaru Salaam tamit affaire bi gën a yokk affaire bi di gën a yokk di gën a yokk bi nga xamee ni nag président France bi fi ñëwoon newoon ci jamono jooju ñu koy wax Sadi Carnot Sadi Carnot bi mu déggee mbiru Serigne Touba moom da koo ñor trop trop trop trop trop parce que dossier yooyu fi la ko fekk te état continuité la bi nga xamee ne dégg na mbiru Serigne Touba dafa préparé gouverneur bi wax Clément Thomas Clément Thomas préparé ko tàggat ko affecté ko fii Sénégal Clément Thomas bi mu fi ñëwee ah, ak sancam sanc Touba am ñoo maase sanc Touba ak euh, arrivé Clément Thomas ñoo maase parce que Serigne Touba bi mu bi mu sancee Daaru Salaam en 1886 ba 1887 euh, 1888 la sanc Touba waaw ah, bi mu sancee Touba nag Clément Touba moom bi fi ñëwee ce qui est fait dans un premier temps moy dafa a seigne parce que ko ci ñor ak xam-xam mu jënd ay yu ay xam-xam ay dem a bi bi seigne bi sañcee touba ba en 1889 la ko dem gane ji waxtaan ak mom waxtaan ak ci yu ci ak xam-xam di li xew ci dëkk bi ak mais bi nga sa eh, saafonte naa ak moom ba war a tàggatoo moom dafa ne ko nag bu ma sañoon nga tas mbooloo mi tas daara yi tas yii nii ndax kilifa gu bees gi fi nekk eh, nguur gu bees gi fi nekk bëgguñu lii nii sëñ bi gàntal ko loolu bu ko sëñ bi gàntalee loolu dafa ci am ak mer bindaat benn rapport yónnee ko ñu approuvé ko mu dem ci ministre des colonies ba ñuy yéegee bi nga xamee ni sëñ bi nekk na foofu noonu xam naa dañuy delluwaat ginnaaw tuuti parce que bu mu sañcee Daaru Salaam en 1886 dafa nekk mbir mi di gën a yëkkati ko ba Touba gii ñuy wax nii nii nii presque li ko fa yóbbu woon mën nañ ne ci wàllu baatin retrait spirituel la ndax bi mu nekkee Daaru Salaam daara ji gën a xumb mbooloo mi bari dafa jékki-jékki génnaat def ab génnaat ab diir dugg ci àll bi ne ci àllu Touba boobu di fa jaamu sunu borom ba sunu borom xamal ni ko fii mooy doon bërëb bi gën wax nañu sax mag ñi bi ñu toogee ay bis gisuñu ko dañoo amoon ak njàqare njàqare gu rëy ci moom. ñu koy wër diko diko wër diko wër diko wër ba dajeeg ab sam ci àll bi bi ndaje mom laaj ko waxu melo yi sëñ bi mel mu ne len ah man de melo yi ngeen ma wax ni ki ma gis ci bërepp sangam muy ndiru nit te du nit melo yi ngeen ma wax ci mom mo ne ci mom ni bi ñu ba ci bërepp bobu gis ko mu jublu penku nek ci suñu borom mais ñom ñëmé wuñu a yegg wax nañ ni sëñ daam Abdourahmane loo woon loo woon sëñ euh, mam Cheikh antambak ak ñeneen ak ñeneen mais ñëmé wuñu yegg taxaw nañ tandu ko lu sore sore sore sore sore buñ ko soré mu nekk ci yalla nekk suñu borom nekk ci bas dir mu ne len mu ne len ni loxo bi ñu yexsi biñu yexse mu waxtaan ak ñom ñu ne ko ñun de amon nañu njàqare ci yow ndax tok nañ ay jamono gisunu la mu ne leen boobu borom dafa ma xabol ni bërepp bi muy bërepp bi gën ci bërepp bi jamono ci ci ci ci ci ci bërepp bi ci jamono joj nak la waajal ne maam Thierno Birahim ak magni lañu pour sanc dëkk bobu non wax nañ ni Touba gogu bimu ko sancee xasida gi mu fa njëkk a muy mat la bu fawsey ni su la ko sunu borom ne ngépp lo ñaan ci xasida gi lepp lu suñu mam Ibrahima ñaanon ci kaaba ge boko ñaané ñaanee ci xasida bi na la ko defal ci xasida na la ko defal ci dekk bi ni kon damay wax ni mbokku jullit yi Tuubaa sax touba gi ñi wax ni li fa wara ñew deug deug sax des na li fay gis ci zaahir ni muy ci walu économie ci walu habitat euh, sur le plan émergence yu ci bari bari bari bari ñew 60 yi rek ñew ñëw na lu bari bari bari bari

ci diggante euh, ci mois de mars la dugg xalwa ci daaru xuddus googu noonu ci la def euh, ci la def lixtif kaaf dugg ci bërëb boobu noonu ba yonent bi ganesi ko ak waa ahlul badar bi ñu ko ganesee suñu euh, rasulilaay xamal ni ko ñetti weer moo la te nekk xut bu samaan sëriñ tubaa ne ko bëgg naa lu ëpp loolu soxla ma la woo mu ne ko loo bëgg mu ne ko sa tànk bi foo ko teggee ma teg sama bos ak yaa ñii nga àndal nii rasulillahi ne ko ah loolu de li ko doon maye faat na li ko doon maye amatul ndax tuur deret ko doon mayee ak lii ak lii te sa moroom yi fi yi ko fi mos a jaar yëpp ku ci jël da koy tegaat te man da di sama xarit te bëgguma nga yàqule boo sama mu ne ko man de bu ma garanti lee ruu rek jëmm ji attan na ko jom ji attan na ko fit bi attan na ko ci la rasulillahi signé sunu borom signé ñu jox bàmba mu wëy bi mu fa jógee as diir mois de mars ci la nag sanc Mbacke Baari Jolof bi mu sancee Mbacke Baari Jolof nag ci la commencé nag yenn lettres yi di commencé ñëw lettres yi di commencé ñëw di ñëw ndax boobu bul fàtte ni Sëñ Tuubaa lettres yi ko tubaab bi mu a bind yëpp dañ ko doon gàllankoor lettres yi du yegsi ci moom ndax loolu yëpp bëggoon ko manigancé colon yi kon bari na euh, nitu diine yoo xam ne ñu ngi woon fii ci réew mi doon woote diine sax ñi leen doon jaxaseeg tubaab bi ay nit la ñu woon ñoo xam ci ci réew mi lañ nekkoon waaw ba nga nag bi mu demee ba xam ne euh, gouverneur moom ñàkk ñëw métti na ko lool lool lool dafa ne maam Thierno man de mosuma xam ne euh, gouverneur sama ñàkk ñëw tollu na ko fii looloo indi demu ndaru maam Thierno gi ñuy dégg foofu dinañ fi def benn taxaw seetlu tuuti ndax maam Thierno Birahim bi muy dem ndar dañoo war a xam motif bi ko yóbbu ndar na Sëriñ Tuubaa dafa ne bu ma xamoon ne gouverneur sama ñàkk teew dina ko yegg fii yegg na ko fii kon wuy ji ko bu yàgg bind lettre jox maam Thierno Birahim mu yóbbu maam Thierno dem Louga jël saxaar wàcc ndar yóbbu lettre bi wax nañu keroog bi muy yegg ndar mu ngi fa yegg waxtu tisbaar heure sieste bi mu yeggee fekk gouverneur jël na pose booy ne ci kaw di pose mu fa fekk benn lieutenant naa bi na ko kule yoon mu ne ko Ahmadou Mbacké mu ne ko lu la wax mu ne ko lettre bi la ma jox pour ma joxal ko gouverneur euh, euh, naa bi ne yoot benn palaat jël palaat bi joxoñ ko ne ko tegal fii lettre bi maam Thierno Birahim ne ko man di ki ma yónnee ak lettre am kenn du ko teg ci ay palaat nag loxo loxo la ma waxoon man ak gouverneur bañ ca nekkee di waxante gouverneur fa mu doon sieste dafa jékki-jékki wàcc euh, bi mu wàccee dawal mu ngi woon ci kaw mu dawal bëtam tuuti xool ramp bi gis ñuy waxante mu ne leen naa bi bàyyi ko mu ñëw na kii ni mu mel ak colkaam beeg melom bi lu mu wax dañ ko koo wax loo lu mu waxu lu mu waxul wax loo wuñ ko kon foofu dafa am part dafa am dafa am dafa am lu mbir mu garaaw mi fa nekk ndax xam nañu maam Thierno Kero bi ko sëñ Touba joxee lettre bi muy génn Mbàkke Baar yi bi mu doxee ñaari jéego sëñ Tuubaa daa na ko Ceerno mu ne ko Mbàkke mu ne ko kaay mu ñëw mu taf ko ci dënnam bu tedd booyee ne ko demal ak sama jëmm ma des ak sa got kon wax nañu maam Ceerno bi muy dem Ndar fitam bu rëy boobu boobu 30 ans la am jëmmi sëriñ Tuubaa la demee woon bi ko gouverneur euh, recevoir ñu waxante la ñuy waxante ñoom ñaar gouverneur dafa ne maam Ceerno dafa ne ko mosul jot sa convocation bu ko jotoon wuy si ne la bu yàgg mais foofu tamit am na beneen taxaw seetlu bu fa am bu fa am ndax euh, interprète bi ñu indi woon muy interpréter li maam Thierno di wax gouverneur waxu ko ko li gouverneur di wax waxu ko maam Thierno maam Thierno gis na ni këram gouverneur gée ngi chance te waxu ko lu jar muy mer ci la ci ak xeejam ak muusam ci la ne nañ ma changé interprète ñu dëkk ci dëkk ba wooyu ku ñu wax Mariane Diaw Mariane Diaw bi mu ñëwee nag li maam Thierno di wax lay wax gouverneur li gouverneur di wax ma ko maam Thierno maam Thierno xool gis ne këram gouverneur yéen commencé wàcc gouverneur bi mu dé lettre ko est-ce que boko bu convoqué dina ma wuy si ko bu jotté sa lettre dina wuy si ndax mosul jot sa lettre gouverneur bi mu bayé ko ndar nak bi mu bayé ko ndar jël saxaar waccu luwa jaar kër suñu Omar ñaan nguñura ne ko ndax am nga fi fas wo xamni du yokkat du tërëf nguñura ñaan euh suñu Omar ñaan ne ko fas wi ne sama wan ak wan ak wii de yafalu ñetti at ngi ci waxuma la tërëf way yokkat sax du ko def mu ne ko nañ mako takal ñu takal ko fas wi ndax boobu mi ngi ak temps bi parce que boobu Leclerc bi nekkoon commandant cercle bu Louga jotoon na ordre pour songu ji Mbàkke Baar yi te bu duggoon day tas dëkk bi taal dëkk bi rey dongoy jàpp sëriñ bi yóbbu loolu moo nekkoon ordre bi mais ñoom bi ñu bi fa sëriñ bi yónnee maam Thierno dañoo jot beneen télégraphe ñu wax ni Ahmadou yónnee na fi waaw le euh, Ahmadou Bamba yónnee na fi ñu campé fu ñuy wax boode bi maam Thierno Birahim jugee ndar nag wàcc kër suñu amoon ñaan ngundiro ba ñu takkal ko fas wi bi mu ñëwee mu ngi fekk Leclerc boode bi mu ñëwee Leclerc ne ko lu la gouverneur wax mu ne ko lii ak lii ak la ma wax mu ne ko jot naa bu yàgg gouverneur mais bu ñu toogee ba suba 17h jotu Ahmadou wuy siwul dinañ dugg Mbàkke Baar yi dinañ toj dëkk bi taal ko rey dongo yi jàpp sëriñ bi yóbbu maam Thierno Birahim ne ko nañ fas yàlla maam Thierno mu ne ko kon naa la boole ak Amadou Ndiaye ak maam Fara Biram Lo muy maam Abdou Lo moom Leclerc moo ko wax loolu ndax diggante boodee ak Mbàkke Baari Jolof àll la woon boo xam ne réer fa dafa yomb lool te kenn daanu fa jaar yoon yi dafa naqaree xam ñu boole ko Amadou njaay ak maam Abdoulou bi ñu demee di dem dem ba mu yàgg maam Abdoulou ne mu mënatul dem ndax dafa sonn wàcc fasam wéex suuf si soonu bi mu soonoo euh, maam Abdoulou soonu euh, maam Thierno Birahim ne ko man may bi dafa war a fanaani dafa a fanaani ndax maam Thierno boobu fekkente temps bi maam ah, maam Abdoulou ne ko man de mënatumaa dem kon àndal ak Amadou Ndiaye Amadou Ndiaye moom it c'est quelqu'un koo xam ne dañuy laaj turam lu bari koo xam ne da liggéey ci armée bi la nekkoon moom soldat la woon ñu joxe woon ko foofu bi mu ànd ak Amadou Ndiaye ñu doxal tuuti Amadou Ndiaye fëxal ci géej gi maanaam ca Birahim réer ci muusam bi mu nekkee ci Serigne Touba bépp xeetu xam-xam da koo jàngal da koo jàngoon muy ilmul nujuum ilmul falak muy xeetu xam-xamu bidiw yooyu xam-xamu niir yooyu mais malheureusement ñu yegg si fekk na fajar jot si julli na ci jàkk ji génnaat ci doxante ci dëgg ci diggante boobu wax nañ ni jamono jooju sax temps mu ngi bu génnee ne na Thierno yegsee wu ñu ko yegsee mu duggaat bi Thierno yegsee dafa génn dënnam ba mu ko tegoon bi muy dem di yóbbu lettre bi ci gouverneur moom la ko tegaat ne ko yegsil Thierno bi man Thierno commencé expliquer matu ko Thierno billaay matu ko démb ci tàkkusaan bi nga taxawee ci lu mel ni bett mbeer di waxanteeg nasaraan bi yokku xorondong gi doon ndox ci sa tànk maa ngi toog jàkkaarloo moom fii ci Mbàkke Baari waaye bi nga demee dafa am aaya alxuraan bu la fi yuutu mooy aaya ba génn woon yenent bi màkk mooy way si yoon pour bi kal lazina kafaru lu yusbituuka aw yoxtuluuka aw yoxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkurullaahu wallaahu xayrul maakiriin yonent bi aaya boobu ko génnoon màkk ñi noonu dañ ñii dañ noonu nañ ko tëj ñii ne nañ ko rey ñii ne nañ ko génnee boobu sëñ sëñ Tuubaa ne maam Cerno boobu moo la fi utu te moom tubaab bi loolu lañ nasoon ci moom ñi ne nañ woon nañ ko tëj ñi ne nañ ko rey ñi ne nañ ko génne sëñ Tuubaa nag nekkati génne gi lu opté woon tubaab bi décidé loolu mu ne waaw moo tax sànq ma ne la ci introduction bi na dafa am sababu sababu zahir am sababu baatin lii nii mooy sababu zahir bi ci li ñuy gis mais sababu batin bi nak moy sababu haybati sababu haybati ya an allah arada an anala min wujaa wa an akuno saafian lil khawmi wa an akuno xaadiman fii daw sababu batin bi ndax suñu borom namon tak pal ko ay garat def ko muy khadimu rasul ba jant bi fenk ba pare def ko ko xamne day ram aw xetam loolu moy sababu batin bi nga xamne ne Sëñ tamit ñëw na maam Cerno ñëw seigne touba dafa ne Cerno boobu mu ngi yeen ci yakki fajaral li lay wax ni ne ko cerna nak suñu borom xamal na ma ni duggaat ci kër gi dafa aram ci man ci ku war a tukki juróom-ñaari at ak lu topp maam Ceerno dugg ci kër gi waajal bagage yi indi fas mu yor amulaahi teg ci dëgal gi jël mbalaanu sooy gi lal ci suñ chamadu Bamba ne jipp yéeg ci fas wi ne ko ana Modou Moustapha ak sëñ fallu mu woo leen ñi ñëw mu jël loxo nday dooram bu tedd ba ci teg ci bopp sëñ Modou Moustapha jël loxo càmmiñam bu tedd ba teg ci bopp sëñ fallu ne ko dénk naa leen yàlla dénk naa leen seen bàyyi Cerno Cerno maa ngi dem liggéeyali suñu borom ci fajar googu nag ci la génn Mbàkke Baari war a daje jeeg tubaab bi jéewal ci la ne xarajtu yow ma sabti saamilil xasar fii ximatil moxtaari bi saxri safar mooy màggal gii ñu dëgmal war koo màggal